moki yi ñu ngi sant yalla borom bi subhanahu wa taala di ko te di ko diko di ko ñaan mu boole ñu defal ñu ndimbalam te boole ñu sàmm boole ñu aar di ñaanal mucc ak ngërëm ak barke ak teranga ak texe yalla yalla defal ko yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moki sahabaam saxaabaam ak mboolem jullit ñi nga xam ne ñoo jaar ci yoonam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ñëw fas yéene ànd ak yéen ci benn tomb boo xam ne bu am solo la nekk tomb boo xam ne mënu la ñàkk ci dundu jullit bi ngir mu mën a texe bi ca àjjana yu kawe ya. tomb boobu tomb la boo xam dénkaane bi yonente bi sallallahu alayhi wa la ci xeetam wi waaye tomb la boo xam ne itam mooy li ñuy ràññee ki nga xam ne day woote woone bëgg na yonente bi sallallahu alayhi wa ci tomb bii lañ koy ràññee tomb boobu mooy lan mooy as sunnatu nabawiya manam sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kon suñ bëgge waxtane sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ko séddale ci lu mat juróomi point juróomi tombe wala juróom ben bu ñëk ba moy dinañ xamle lan moy sunna bu ñu waxee sunna lan lañ ci jublu dañ ko xam ne ci ñaari xamle ci wàllu langue muy luga ak ci wàllu istilaax mi maanaam sharia ñaareelu tomb bi dinañ ñëw ci pas ñi nga xam ne ñoo askanoo sunna si yonente boobu sallallahu alayhi wa ñetteel ba dinañ ñëw taxaw seetlu ci sax gisul na sax ci biir alquranul karim aaya yi ko digle ak itam sax gisul na sax ci biir sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñetteel ba dinañ ñëw ci wàccuwaayu sunna ban place la sunna am ci saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy taabiona yi ak mboolem salafu saalix wàccuwaay bu kawe bi ñu joxoon sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi ci ay exemple euh, juróomeel ba ñu ñëw ci ban relation la sunna am ak téere bi yàlla bi di alquranul karim am nañ ak jàppaloo gu am jàppaloo googu nan la demee juróom mbenneel ba mooy xeeti sunna yi sunna ñaata xeet la wala ñaata façon la loolu dinañ ci ñëw beneen ba ca topp te foofu lañuy ñuy tëjee mooy euh, turu ñi nga xam ne ñu askanoo sunna soosu ak jagle gi yàlla jagleel ñi téye ci sunna soosu ak seeni ngëneel kon dafa mel ne bu ñu xoolee tomb yu yu bari la waaye bu ci nekk dafa laaj taxaw jàngat ko bu baax a baax fi ñuy dooree mooy euh, dañuy wax ahlu sunna wal jamaa dañuy wax ahlu sunna wal jamaa loolu pas-pas la boo xam ne day nekk ci nit ki moo tax mu mën a askanoo ahlu sunna wal jamaa su ko defee pas-pas boobu buñ xoolee cosaanam ñu ngi ko jëlee ci aqida bu ñu ko waxee mooy al aqdu wa rab bi shiddati wal quwa loolu ñu tudde pas-pas su ko defee pas-pas boobu bu dee ci wàllu istilaax ci sharia mooy loo xam ne mooy gëm bu wér ak loo xam ne àtte la bu dog ci xol loolu mooy la ñuy la ñuy tuddee pas loolu ñu tudde pas-pas mooy li nit ki fas pas-pas boobu pas-pas boobu nag ñaar la pas-pas bu baax mooy pas-pas bu wér bi mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mooy pas-pas bu ñuy askanoo sunna ñaareel bi mooy pas-pas boo xam ne dafa yàqu mooy pas-pas bu baaxul ndax yéefari sax fi mu ne am na ñu fas waaye nañ fas moo baaxul kon loolu mooy lu aju ci wàllu pas-pasu ahlu sunna wal jamaa léegi buñ waxee sunna mooy lan sunna ci xamle bu njëkk gi bu dee ci wàllu langue arab sunna baat bi baatu arab la euh, dañuy wax ne sunna mooy aw yoon sunna li muy tekk ci langue mooy ab tariq mooy aw yoon walla aw doxalin ba tey mën na koo tekki mën nañ ci euh, indi ay firne li mel na lu borom bi subhanahu wa taala wax ne sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajid li sunnatina tahwila yàlla suñu borom nee na loolu mooy doxaliinu ñi nga xam ne ñoom la yàlla doon yónni kon aw doxalin dinañ ko tudde sunna boroom bi tabaaraka wa day waxaat ne sunnatallahi allati qad xalat min qabl loolu mooy doxaliin wi yàlla doon doxa doxalee ci xeet yi nga xam ne moo jiitu loolu aw doxaliin la borom bi tabaaraka wa itam dinañ gisaat muy wax naan wama manaa annaasa an yuminu id jaahum alhuda wa yastaghfiru rabbahum illa an yatiyahum mu ne sunnat al awalin loolu ma nga ci suuratul kahfi buñ ñëwee ci xadis yonent bi am na maanaa mu koy tegtale ci mu jàppaloo ak loxa bi mooy li wax ne ci xadisu bu wér yonent bi salaam wax man qablakum mu ne di topp yoonu ñu leen jiitu fuñ dugg ngeen dugg fuñ fuñ jaar ngeen jaar fa bi waxee loolu saxaaba yi ne ko ah xanaa waxoo yahudi ak nasara nasaraan yi mu ne leen su ma waxul ñooñ ñan laay wax xam ngeen ne ñooñ laay wax euh, bu ñëwee ci beneen xamle sunna muy ci wàllu istilaax ci wàllu sharia bu ñu waxee sunna lan lañ ci jublu dinañ ko xamle ci lu tolloog ci juróomi xamle wala ñeent euh, sunna mooy yoon wu jub wi yàlla gërëm mooy njub gi yàlla jox yonente bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy sunna alxaafid ibnu rajab day wax ne sunna mooy yoon wu jub wi nga xam ne day digle ci jàpp ci alquran ak roy ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam loolu la xaafid ibnu rajab wax ne mooy mooy sunna loolu nag dafay làmboo ay jëf ci wàllu jëf ak ci wàllu wax ak ci wàllu pas-pas kon ñett yooyu yëpp da ciy daje da ciy daje ibnu taymiya day wax ne sunna mooy loo xam ne dafa am firnde daa am dalil kon ki ne ci sunna faawut day am firnde te firnde ci diine ji nag mooy alquran ak xadis yi kon loolu dafa ñëw yaatal maanaa yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ ko doon wax euh, sunna buñ ko waxee mooy topp yoonu yonent bi alayhi salaatu ak ñi nga xam ne la yoroon muy saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy doongay saxaaba yooyu muy taabiuuna yi ak salafu saalix loolu mooy sunna waaye bu ñu ñëwee ci ñi nga xam ne ñooy muhaddis wala ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a yittewoo wàllu xadis gën koo xam ñooñu am na xamle bu ñu koy xamle almuhaddisuuna dañuy wax ne sunna mooy wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ak i ak li nga xam ne da koo saxal ak melokaanam ak ay jukkoom loolu mooy mooy na ak ni ko yàlla bindee woon kon loolu ñi nga xam ne ñooy te wàllu xadis loolu la ñuy wax ne mooy euh, sun na loolu nag moo xam ay waxam la jiitu yàlla di ko yónni wala après bi ko yàlla yónnee la alayhi salaatu wassalaam loolu la muxaddisoon yi wax ne mooy mooy sunna loolu Euh, ku mel ne imaam Buxaari imaam Tirmizi Daaru Qutni euh, muslim ak ñu baree bari ci taarif boobu lañ gën a gën a jéng jëm moo tax ñuy wax ne mu na yi ñoom niñ ko firee mooy ni gën a mooy ni gën a jub donte ñeneen ñi am na yeneen firi buñ ñëwee ci ñi nga xam ne ñooy teew wàllu fiq muy ay alfuqaha ñoom dañoo wax ne sunna mooy lépp loo xam ne sax na am dalil boo xam ne moo koy firndeel dalil boo xam ne day wane ne mbir mi ku ko def di am tuyaaba waaye ku ko bàyyi doo am bàkkaar loolu ci buntu fiq la ci buntu fiq la ñu bari duñ ràññee ñaari ñaari kii yooyu ci buntu fiq la moo tax ñoom dañuy séddale àttey diine ji ci juróomi xaaj lu ñu sopp ak loo xam ne dafa war ak loo xam ne daa dagal ak loo xam ne dafa xaraam ak loo xam ne dañ ko sib ak loo xam ne sunna la ñoom ci cadre boobu la ñuy waxee léegi nag bu fekkee déggoo seen taarif boobu euh, mën nga jaawale ak jëmmi sunna bi nga xamante ne moo tax ñuy wax fekk bokkul euh, ñeenteel ba mooy yi nga xam ne ñoom la ñu tuddee al usuli yuun boroom xam-xame usul yi ñoom ni ñu firee sunna dañoo wax ne mooy sunna mooy jëfi wax yonente bi salaam ak i jëfam ak yi nga xam ne da koo saxal te yooyu ñu mën cee génne ay àtte sharia ñu mën cee gétte génne ay àtte yoo xamante ne àttay sharia la kon ñoom yi nga xam ne moom yàlla da ko jagleeloon yonente bi donte ay jëfam la mais ak jagleel bu ko yàlla jagleel nga xam ne kenn suñu ko cee roy lu mel ne takk lu ëpp ñeenti jabar kooku kenn suñu cee roy yonente bi ci xeet bi kooku yàlla da koo ak woor ba ngoon jot nga war a dog daal di continuer da ko daan def loolu jagle bu ko yàlla jagleeloon la moo tax yenn saxaaba yi doon nañ ko ci roy mu ne leen ku ci mel ne Amru ibn ngir xër gum xër ci roy roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal ko koy tere ne ko déedéet loolu euh, bul ko def kon yooyu donte ay jëfam la waaye duñ ko ci roy ndax dafa am ak jagle bu ko ci yàlla jagleel kon loolu lu am solo la jaam bi dégg ko léegi ñu ñëw ci na ñaata xaaj la sunna borom xam yi dañu wax ne ñetti xaaj la ñetti xaaj la mooy sunnay jëf loo xam ne yonente bi alayhi salaam da koo jëf ñaareel ba sunnas wax loo xam ne yonente bi da koo wax mu jaamu yàlla ci xeetu wax loolu dañ ci roy yonente bi alayhi salaam am sunna so xamne da ko saxal manam nit def na ci kanamam loo xam ne imsan salama téréwu ko euh, lolu dañ koy jappé sunna nak kon da ko saxal lolu borom am di wax ne sunna si day séddal ko ñetti yoyu euh benen tomb bi moy sunna ndax lu sax la ci alquran wala wala lu sax la ci sunna si yonente sallallahu alayhi Wasallam. waaw bu ñëwé ci alquran karim dañuy gis ay yu bari di saxal sunna si yonent bi alayhi ak di wane ne dañ koo war a topp du jeex bokk na ca borom bi yàlla subhaanahu wa taala day wax naan yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil yàlla suñu borom danaan dafa wax ne yéen ñi nga xam ne yéenay way gëm yi yeneen nee gëm ngeen topp leen yàlla topp ab yonenteem ku topp yonente bi man ngaa bàyyi sunna mënul nekk dañoo taxoo topp leen yàlla topp ab yonenteem bokk na ca borom bi subhanahu wa wax ne fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir soo leen wuutee ci mbir yàlla nee na na ngeen ko delloo mbir mi àtte ba ci yàlla akub yonenteem delloo àtte bi ci yàlla mooy dellu ci téeréem bi xool lim ci wax soo leen ko ci gisul ngeen delloo àtte bi ci ab yonenteem Maymuna bint Imraan day wax ne loolu mooy nga dellu ci jëmm yonent sallallahu bi muy dund bu fi jógee nag nga dellu ci sunnaam si mu fi bàyyi loolu la borom bi subhanahu wa taala santaane borom bi yàlla subhanahu wa taala waxaat ne wa in tutiuhu tahtadu soo leen toppee yonent bi rek da ngeen di gindeeku soo leen koy topp di gindeeku ku ci bëgg gindeeku topp ko rek wa in tutiuhu tahtadu bu ñu xoolaatee itam borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax naan fala wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima suratu nisa borom bi yàlla subhanahu wa taala dafa waat foofu yàlla mi ñu bind mooy waat néeg giñ naa ci sa boroom yow muhammad ne nit ñi duñ gëm mukk li fekk àtte woowuñ àtte woowuñ la yow nga àtte leen lii xew seen diggante te boo leen àttee ba noppi àtte bi neex leen kenn bañ caa am luy xun-xuni sa xol ci àtte bi waaye boo leen àttee ba noppi itam ñu daal di nangu àtte bi ñoom ñëpp allahu akbar moo tax say ibnu qayyim day wax ne àtte woo yonente bi sallallahu alayhi ak li mu indi loolu mooy taxaw ci nit ki taxawaayu ngëm waaye itam mu at ba noppi àtte bi neex la doo am loo ci loo ci euh, kii ak yooyu loolu mooy taxaw ci nit ki taxawaayu ixsaan muy rafetal waaye mu àtte bu noppi itam àtteem nga jël ko jébbalu nangu nangul yàlla ci lim jaarale ci yonent bi ab at ab àtte loolu mooy taxaw ci nit ki taxawaayu euh, islam nekk wax joo xam ne ju rafet la bu ñëwee tam ci sunna si yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dañ ciy gis ay jàngalin yu bare bari yoo xamante ne day saxal sunnaam sii ne dañ koo war a topp dañ ko war a jëfee moom la jullit bi war a tënku bokk na ca xadis boo xam ne irbaad ibnu saariya moo ko nettali irbaad dafa wax yem saa salama dañoo waar loolu xajatul wadaa la mooy aj gi mujj aj aj googu rek yem salama di leen leen waaraate gu tàng jër noonu ko suñu ronko ñi genn suñu xol yi tiit ñu ne yonent bi da mel ne da ngay tàggatoo de kon denku ñu ñoom saa ne len ma ngi leen di ragal yalla ak euh, top ci bir hadith bi yonent sa salama wax ne kep ko xamne ne gudd na fan ci yeen dina gis ak wote gu bari ci sama xéet bi waye su wote gogu amé len la leen di fa alaykum bi sunnati ma ngi di ngeen japp ci sama sunna na ngi leen di dénk ngeen japp ci sama sunna kon jëmmi sunna baat sunna sax yonent bi moko tuddé sunna manam nekul baat bo xamné ma samba moko tuddé sunna wala ma dem yonent bi ci bopp moko tuddé sunna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kon du tur wuñ keree du tur wuñ gént wax waaye yonent bi moko sunna mu ne kon na ngeen japp ci sama sunna ak sunna sama khulafa wi ñi nga xamné dañoo da ngeen watandiku mbuur yi ñu sos nak lepp lu ñu sos bidaa la te gep gi bidaa ak sànkute la euh, bu ñu ñëwee itam ci xadis buxaari ak muslim ci xadis bu wér boo xam ne anas moo ko nettali anas daa wax ne dafa am ñett nit ñu ñëw ci kër yonente bi alayhi salaam ci saxaaba yi lañ bokk ñëwee di laaj waa kër yonente bi yonente bi nan lay jaamoo yàlla ci biir këram bu nekkee ci këram nan lay nan lay jaamoo yàlla ah soxna yi daal leen koy wax ñett ñooñu mel na daal lañ leen wax dañ koo xeeb ñu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku moo fi gën kooku yàlla jégal na ko mboolem yàlla topp ko dara ah ñun nag ñun ñoo des kenn ki ne ma de bu mu jógee fii dootuma nelaw guddi damay naafila rek kenn ki ne man moom euh, du ma denc soxna waaw damay nekk di jaamu yàlla rek ka ca ne man damay woor lootuma doom xam naa ne euh, <laughs> waaw léegi yëpp saa salaam bi mu déggee loolu dafa xutba wax ne lu tax ay nit di wax nangam ak nangam. ñoña mu yonte bi laaj dene yeen wax nangam ñu ne waaw ñëpp sa sama neen ah man de bu de ragal yalla motax ngeen bëgg def loolu ak bëgg bëgg jaamu yalla man de ma leen gëna ragal yalla te ma leen dox ma leen dàq topp yalla te man damay wor di dox damay naafile guddi damay tedd nelaw te it damay denc ci soxna yi damay am ay soxna ne leen li nak moy sama sunna kep ko xamne bañ nga sama sunna boko ci man alayhi salaam loolu la wax batay buñ ñëwee itam dinañ gis xadiisu jaabir jaabir daa wax ne yëpp salama da daan wax ci xutbaam lu baree baree bari naan inna xayral xadiisi kitaabullah wa xayrul hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp da ko daan wax ci xutbaam lu baree baree bari buñ ñëwee itam dinañ gis xadiis boo xam ne imaam ahmad génnee na ko ci xadiisu abi daawud ak tirmisi ci isnaad boo xam ne bu wér la xadiis bi miqdaadu bnu معد معدي على يكرم ممكن يتل دا وحنا يوم سان سلام دا وحنا من يالله دا ما جو أكلو من تيري بي نون على وإني أوتي تل كتاب ومثله معه يالله دا ما جو مي القرآن جو حملو من تيري بي لقلو من تيري بوبو برام هم يبدو بونا كنا موي سنة كن سنة وحي لا جبريل دا كلون عندي كم نمي عندي القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم تيرن تبعان سر السلام كن لولو لمتا باي خلا motax ci hadith abi hurayra yem saa salama da ci wax wax ju leer ci top sunnaam mu ne sama xet bi yep dañuy dugg aljana sama xet bi yep dañuy dugg aljana bam dess ku bañ ko xamne dafa lànk ne mom du dugg aljana xamna ko ku deugal bopp la wara a legi léegi yem bi waxe lolu sahaba yi jaxle ne ko ah kan moy bañ dugg aljana kan moy lànk ne du dugg aljana yem saa salama daal ne len firil len wax di ne len kep kuma top dugg aljana kep ko xamne moy nga ma topoma to topp sama sunna ko yow yaay ke bañ a dugg kon nak nag to topp sunna euh musiba la de waaw nañu ci baye xel kon lolu ay hadith yu bari ya, bari dafa ñew di ko wax di ko euh sunna sunna yonente bi salaam xam nañ ne top ko sart la ci nangu jëf ndax nangu jëf nit ki ngir li ngay def ci ay jaamu yalla yalla yalla da nga bëgg yalla nangu ko ngir yàlla nang ko il faut mam ñaari sart sart mu njëkk bi mooy jaamu yàlla gi nang ko def ngir jëmmi yàlla te it na nekk du la yàlla digal na nekk loo xam ne da ci am digalul yàlla te digalul yàlla yaa ngi koy amee ci alquran wala ci sunna te it boo koy def na sell jëmmi yàlla tax bu ci bokkaaleem bu ci ngis talam ñaareel ba mooy na dëppoo ak sunna maanaam bu dee lu ñuy wax wax ko ni ko yonente bi waxee te yem ca bul dolli bul wàññi bu dee lu ñuy jëf jëfe ko ni ko yonente bi jëfe woon bul dolli bul wàññi ndax diina ji daa kenn amul loo ciy dolli loo ciy wàññi alay lakum firndeel na ko moo tax ci xadisu Aïcha yon saa salaam wax ne képp ku sos mbir képp sos dara boole ko ci diine ji te yaa ko sos bokku ci dañ la koy delloo yow mi nga xam ne yaa ko jëfoon ci waaye muslim mu ne képp ku jëf benn jëf te amoo ci suñu ndigal ñun yàlla man mi yàlla yónni dañ la koy delloo kon loolu ay xadis yu baree bare da cee ñëw yooyu yenn la ci tomb bi ci topp mooy saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy taabiina yi ak salafu saalix muy nit ñu baax ñi ñoom ban wàccuwaay ak ban ban daraja lañ joxoon ak nan lañ fonke woon sunna si yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu taxaw ci xool tuuti euh, su ko defee ñun ku ak ku ne ci ñun ci sa bopp xool saxaaba yi dañoo fonkoon sunna si yonente bi alayhi salaatu mu rëy ci ñoom ñu màggaloon sunnaam si ñu fonkoon ko torop bokk na ci li koy firndeel Aboubacrine radiyallahu anhu mi nga xam ne moo gën ci xeet bi ginnaaw yonent bi alayhi salaam Aboubacrine da daan wax ne de du bàyyi dara lu yonent lu yonent bi alayhi salaam sunnaal du ma ko bàyyi ne ragal naa ne su ma bàyyee lu yonent bi sunnaal rek dinaa tarxiis tàbbi sawara Aboubacrine mooy wax loola Aboubacrine mi nga xam ne moo gën ci xeet bi ginnaaw yonent bi alayhi salaam moo gën a Omar gën a Usmaan moom mooy wax loolu kon nag ñun xam naa dinañ ñu laaj lan lañu war a wax ñun Omar ibnul Abdul Aziz da daan wax ne man duma gis xalaatu kenn ci wetu sunna si yonente bi alayhi salaam xasee ne sunna si baa ngi nii xalaatu kenn wëree su ko teg ci wetam kon sunna moom dañ koy jël teg ko ci kaw mu gën a kawe sax mbaxana ndax dañ ko war a fonk kon sunna noonu la ko nit ki war a jàppe imaam ahmad ibnu hanbal da daan wax ne képp koo xam dañ la andil xadisu yonente bi alei salaam nga daat koy delloo lànk ko ngir ay gis-gis ak intérêt nee na kooku yaa ngi ci paxu sawara yaa ngi taxaw ci kàmbu sawara te boo deful di ci dugg kon loolu lu mata a bàyyi xel la imam malik da daan wax ne nit kum mën a doon am na lu ñuy jël ci say wax am na yoo xam du ko jël say wax dañ la koy delloo ba mu des yonente bi alayhi salaatu salaam yonente bi alayhi salaam waxam yépp la jël waxam yépp lañuy ñuy jël ndax yàlla moo ko garanté ku dul yonente bi nag ah say wax moom ya ci dëppoo ak alxuraan sunna lañuy jël ya nga xam ne dafa wuuteeg alxuraan ak sunna moom ñu daat koy sànni fële loolu la imaam Malik wax imaam al yi day wax ne boo demee ci sarxu as sunna day wax ne saa yoo gisee nit ki saa yoo gisee nit ki muy jam sunna si yonente bi alayhi salaam di ñaawal di ci jëm di ko ayibaal kooku tuumaal ko ci islaam tuumaal ko xam ne kooku du jullit ndax bu dee ab jullit du def loolu kon loolu lu mat a bàyyi xel la imaam Malik Anas ibnu Malik Malik ibnu Anas laa bëgg a wax da daan wax ne sunna mooy gaalu noox gaalu noox ca jamono ku ca dugg rek lam nga alku nga nee na sunna mooy gaalu noox ku bëgg a mucc da nga ciy dugg de bàyyi gaal gi nag moom lab rek waaw sunna moom noonu la mel kon lu mat bàyyi xel la ibnu sirin alayhi rahmatullah ci taabiane la bokk na sirin dafa mas di waxtaan ak benn waay ba wax ko nettali ko xadisu yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu ko ko nettalee waa ne ko ah waaye waaye diw moom nee na nàngam ak nàngam ibnu sirin daal di tàng daal di tàng ci kawam daal ne ko yow maa ngi lay waxal waxi yonente bi di la waxtaanal xadisu yonente bi ngay jël waxi diw ak xalaatu diw bëgg koo teg ci kaw xadisu yonent bi sallam daal ni giñ ci yàlla ne ma wax ak yow comme wax wax diw ngay jéem a gam-gam lek wax yonent bi man ma wax ak yow ci yenn riwaaye sax dañoo wax ni ibnu sirin waxatul ak waa jooju ba lim génnee àdduna <laughs> allahu akbar xoolal ñii ni fi leen sunna si yonent bi tolloon sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa loolu mooy dëggu lu mat a bàyyi xel la buñ demee itam dinañ gis ku ci mel ne Salim ibnu abdillah day nettali ne Abdullah ibn Omar amoon na doom bu ñuy wax Bilaal Abdullah ibn Omar daa mas toog ak doomam bu ñuy wax Bilaal Abdullah ibn Omar daal ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu leen tere seen jigéen ñi bu leen tere seen soxna yi buñ leen tàggoo ngir dem ci jàkka ya jàkka yàlla yi bu leen leen tere doomam Bilaal ne ko danañ leen tere bi waxee loolu rek Abdullah ibn Omar dafa mer daal di jug di ko ŋàññi ŋàññi yoo xam ne te doomam waaw yoo xamante ne si waaw loolu lépp li ko waral rek mooy doom ji waaw daa jël xalaatam rek bëgg koo teg ci waxu yonent bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax xasanul basri di wax ne jëf yi ak wax yi du baax lu dul su àndee ak yéene jëf ak wax yéene képp mooy tax mu baax faaw mu ànd ak yéene mu ne jëf ak wax ak yéene du baax mukk te àndul ak sunna ba noppi allahu akbar ñooñu noonu lañ dégge woon lii di sunna si yonente bi alayhi salatu su ko defee mbokk yi beneen tomb bi ci topp mooy ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna nga xam ne ñoo askanoo sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ñooñu seeni tur ak seeni melokaan ak lan mooy seeni jagle yeleen yàlla ak lan mooy seeni ngëneel allahu akbar parce que ñi topp sunna nag dañoo am yàlla dana beral loxo parce que ki ñu topp la nag yàlla dana beral loxo euh, ahlu sunna wal jamaa suñ ko waxee mooy ñan ñan ñooy ahlu sunna wal jamaa bari nañ ñu bare bari di wax ahlu sunna wal jamaa waaye ñan ñooy ahlu sunna wal jamaa ba noppi ñan ahlu sunna wal jamaa mooy ñi nga xam ne dañoo nekk di dund lu mel ne la yonente ba doon dund bu ci seen walu pas-pas ñoom ñi ngi jéem am pas pass yonente bi amul ak sahaba yi seen walu wax seen wax ak seen jëf ak seen jukko ak seen melokan yépp ñi ngi koy jéem a ak melokan yonente bi ak waxam ak i euh, mboolem fi yi jaaroon ñoñu ñoy ahlu sunna moy ñi japp ci alquran ak sunna si yonente bi alayhi salatu wassalam kon ñi jàpp ci alxuraan kese ñooñu du ñu ahlu na de te kuréel yooyu léegi commencé na di gën a bari am ñoo xam dañuy wax ne alxuraan rek alxuraan rek doy kese yàlla neen alxuraan kese doyul alxuraan ak sunna ñooy ànd waaw mun la ñàkk kon nañ ci bàyyi xel ndax alxuraan moo digle topp sunna ñi nga xam ne ñoo ñooy ahlu sunna ñooy ñi sori bidaa japp ci la yonent bi nekkon la nekk ci la yonent bi nekkon mo xam nak rew muñ mëna nek nekk ak jamono juñ mëna dund mo xam rew muñ mëna nek nekk ak jamono juñ mëna dund kon du sahaba yi kesse sahaba yi ci lañ bok ak tabi'una yi ak ñetti top ak ba suñ jamono ak ñi ñew suñ ginnaw sax kep ko xamne rek da nga nekk ci lu mel na yonent ba nekkon ci walu pas-pas ci walu jukko ci euh wax ci walu jëf ci walu melokan yow ci ahlu sunna nga bok kon ahlu sunna du du kuréel boo xam ne rek waaw da ngay jënd carte membre door cee bokk déedéet déedéet kon loolu nañu ci bàyyi xel mbokki jullit yi bu baax a baax ahlu sunna buñ ñëwee ci xadiisu afu ibnu malik daa wax ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na yahud yi dañoo séddalikoo dañoo tàqalikoo séddalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak benn soixante onze kuréel kon bari nañ mu ne soixante-dix kuréel yépp dañuy tàbbi sawara benn moo cay mucc mu ne yahu mu ne nasaraan yi dañoo séddali ko soixante-douze kuréel juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar mu ne juróom-ñaar fukk yi ak ñaar yépp sawara lañ jëm benn moo ciy mucc yém saa sama teg ci lu doy waar mu ne nag sama xeet wii sama xeet wii dinañ tàqalikoo séddalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett mu ne nag juróom-ñaar fukki yi ak ñaar yëpp sawara la jëm benn rek moo ci mucc benn boobu mooy ahlu sunna wal jamaa benn rek moo ci dugg àjjana muy ahlu sunna wal jamaa yàlla na yàlla boole ñu ci ba tey mbokk yi ahlu sunna wal jamaa yém saa salama leeral na mooy ñan ci xadisu abdullah ibnu amr dafa wax ne yém saa salama daa wax ne Euh, giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama loxo mi ngi ci bakkanam sama xeet wi dafay séddalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett juróom-ñaar fukki kuréel yi ak ñaar yépp sawara la jëm benn moo ciy dugg àjjana benn kuréel mooy mbooloo ma noonu la ko waxee mooy mbooloo ma dañ koo laaj ne ko ba boobu ban kuréel la mu ne mooy jamaa mooy mbooloo ma mbooloo gi mi nga xam ne dañoo booloo ci dëgg mbooloo mi nga xam ne bu dëgg moo leen boole boo demee ci rawaati Tirmisi yi ci ab euh, ci euh, Abdullah ibn Umar ba tey bi ñu laajoon saa sam ne kon ñooñu mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne lu mel lu mel na lii ma nekk maag samay saxaaba ñoom ci la nekk allahu mel ne lii ma nekk di ko dund ci pas-pas ci wax ci jëf ci melokaan ci jukko ñu lu mel noonu la dund kon loolu ma ta bàyyi xel la mbokk yi ñooñu ñooy ahlu sunna jamaa ahlu sunna wal jamaa nag boroom xam ne dañ leen tuddee yeneen tur yu bari yoo xam ne yépp dafa dëppoo ak i ay xadis yu wér bokk na ca bu njëkk ba mooy dañ leen tuddee al firqatu ya maanaam kuréel bu mucc bi kuréel bi nga xam ne moo mucc xadis bi ma jàng léegi firndeel na ko kuréel yi nga xam ne yépp moom la xeet bi di tàqalikoo ay pàcc-pàcc yépp même sens nee na yooyu sawara la ñu benn rek moo ciy mucc mooy ahlus sunna ñoom moo tax ñu tëdd leen kuréel bi nga xam ne mooy bu mucc bi ñaareel ba muy bokkoon ci seeni tur mooy ab taifatul mansura mbooloo mi nga xam ne ñoom la yàlla di dimbali ndax ñoo ne ci dëgg ñoom la yàlla di dimbali loolu xadiisu muawiya radiallahu anhu moo ñu ko nettali muawiya dane dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne sama xeet wi sama xeet wi du deñ mukk am kuréel boo xam ne dina ci nekk ak lu mu yàgg-yàgg lu jamono yàqu-yàqu dina am kuréel bu nekk ci sama xeet wii boo xamante ne dañuy taxaw di leeral mbirum yàlla di jàngale diine dëggu ci lool képp koo xam ne wuute na ak ñoom du leen lor ku leen jéem a gàccal du leen lor ci loolu lañuy sax te ñooñu dañuy ràññeeku ci biir nit ñi alayhi wax te ñooñu dañuy ràññeeku ci biir nit ñi <laughs> akbar Yonent saa wax dëgg te ñooñu dañuy ràññeeku ci biir nit ñi dañ leen di ràññee alayhi loolu la wax bu demee ci xadiisu Sawbaan itam wax na lu mel noonu ñaari xadiis nuroo na lool daanaka benn la Sawbaan daa wax ne Yonent saa salaam nee na jamono lu mu yàgg-yàgg dina am kuréel bu ne ci sama xeet wi boo xamante ne dañuy ràññeeku ci dëgg dañuy feeñ ràññeeku ci dëgg képp ku wuteeg ñoom loolu du leen lool dara. kep ku len doye di lolu du len wañi dara ci lolu lañuy sax ba kérok mbirum yalla di di ñew mbokk yi euh, ñentel ba muy bokk na ci seeni tour moy ñi nga xamne dañoo ci alquran ak sunna kon euh, seeni tour lu limu la su ko defé dañuy taxawlu fofu inshallah taala Euh, dinañ amaat beneen jataay insha allahu taala ngir àggale li des ci lu aju ci sunna si yonente bi alei salatu wasalaam yal na yàlla defal ñu tawfiq te boole ñu aar boole ñu jariñ wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashaabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu